ma ba ma tàyyi ngeen soog a def lu baax noblesse dafa am ci gëm naa ni noobal ngeen salaamaaleykum mbokki internet ñu ngi lay nuyu fa leen daan nuyooti rek tey ñu am mbégte nag dalal si eh, fi nga xam mooy ganu kër gi si dakar info point net Eh, doomu Kaolack doomu Saloum fa la juddoo waaye mi ngi yaroo màggee fi nga xam ne moom mooy Ndakaaru eh, kooku na ñu gën ko xam si Makhtar fay di artiste di ndaanaan di way waaye di bongo également tamit doon ndaanaan si li mu doon si musique traditionnelle eh, tey ñu am mbégte nag dalal ko dinañ waxtaan si li nga xam moom mooy parcours bi di ko wayloo waxtaan si li nga xam ne également tamit mooy bool yi bongo yi nga xam dina koy Euh, jëfandikoo waaye dañ waxtaan si li nga xam ne mooy premier événement bi nga xam ni teg na ko foofu si nga xam ne moom mooy Grand Médine di fiefam euh, mu woote fa lu rëy dinañ si ko setaan waxtaan si waaye également tam daañu waxtaan si ay projet ndax mu ngi am yéene génne album wala single fan la si toll orchestre bi ndax mi ngi siy tourné fa la si toll yooyu yëpp dañ si waxtaan incha allah kon du def rek du dul nuyu ko bàyyi ko mu nuyu suñu mbokk internet yi ñu setaan si Dakar info point net salaamaaleykum sama Thomas Makhtar euh, Faye maa ngi maaleykum salaam. maa ngi lay fay. gannaaw bi ma sante yàlla. julli ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. di gërëm sama ñaari waajur. bu baax a baax a baax ndax lépp ñoom la. ndeysaan. di gërëm nag di sant senegal gépp képp foo ko xam ne sama fans nga foo nekk. Mhm. maa ngi lay sant di la gërëm. Mhm. di la jox sa wàccuwaay. parce que man euh, Sénégal ma dooleel rek. senegal moo la doy doo dooleel nga juddoo euh, Saalum mais yaroon Ndakaaru màggee fii euh, ndax mën nañu xam lan moo la woyloo ak fan nga commencé dëgg way ndax Saalum la Ndakaaru la ak tey bu fekkee ni dafa da ko doon looñ si mën a wax waaw way moom dama ko doon Kaolack nag laa commencé way suma rakku papa mhm. bu ñuy wax Cheikh Samuel Faye mhm. moom moo ma gën a poussé moo ma jàppale ci ay way parce que bi ma macha allah bi ma xàmmee ba ràññee mm-hmm. way dafa mas doon sama amour mm-hmm. ma di ko faye ñu ne ma lii bu ko faye war ngaa cee man a am lu ne <laughs> waaw Kaolack nag gi ma nekk mm-hmm. dëgg yàlla ku fay géer wala ngay ñeeñoo wala loo manti doon ñoom ñëpp li may def intéressé leen toll na ay jamono Kaolack nag ku xewle te taxaw ma sa xew dafa mel ne dara amu fa. waaw loolu loolu moom am na moom. <laughs> loolu moom am na loolu lu ñu tàggat si yow la ndax ndax da doon ànd ak sa sa sa sa sa kilifa googu nga doon ànd. waaw Cheikh Samuel ma doon ànd moom. Mhm. mu di ma yokk fit nag lool. Mhm. géew bu ma mas a taxaw nag wax dëgg yàlla ndaanaan la ma fekk jëlee la fa te booba xale laa. si fàttaliku. Mhm. est-ce que mën nga ñu am loo ñu yëkkatil. Eh, si li nga xam ni xëy na xew boo daan bu mosoon dem rek. nit ñi doon nañ ko xaar nga yëkkatiku mën nga ñu am loo ñu loo ñu si may. waaw loolu moom mën naa ne moom. yëkkatil ñu tuuti ñu xool. waaw wax naan. andoon na maag chéri booyo sa njaram lamb mu fàtte feram ya ca tool ya sa njaram ne ma tey nga jëli ko sa njaram lamb ah baayam ne ma tey nga jëli ko sa njaram maxu waxaloo way waxal waxal waxaloo oh, oh, boo waxee ma dem. ndeysaan mu nekk wayu cosaan. mu nekk wayu cosaan. Euh, Fatou Guewel di di ko reprendre moo ki xam moom mooy euh, Abdou Rass. mooy Abdou Rass ah, moomu nag. Euh, ndeysaan. Mhm. ci boo ma ne. Mhm. man mi maa ko tàggat. ndeysaan ci man la ne woon. ndaanaan la. waaw ndaanaan la tàggat ga ndaanaan. waaw looloo am. kon ndaanaan moo tàggat ndaanaan. loolu moo ne ñuy wax. <laughs> waaw mu nekk Kassaville xam naa ne fu mu ne xaw mi ngi xam naa mi ngi may seetaan. Mhm. waaye lii may wax nii. boobu mi ngi Casamance. Mhm. maamam yar ko. ndeysaan waaw mu ne mu nekk lu ndaw nag. lu ndaw waaw li may def nag neex ko intéressé ko loolu mu ñëw tafu ci sama kaw. macha allah waaw loolu ñàkk ki ñaan la. waaw tey bu ñu ñëwee eh, mhm. bi nga ñëwee Ndakaaru wala bokk sa Kaolack wax nga ko fa nga ko dooree mais bi nga mhm. ñëwee Ndakaaru doon lu tout tànk daanaka fi nga màggee. Eh, ñu gis ni da nga commencé di way mais da nga yore yaa ngi ak bongo bi. waaye da ko boole ay bool lan lu tax choix boobu. wala si loolu nga xam. waaw loolu la xam ñun euh, Saalum. Mm-hmm. ñun loolu la ñu xam. Mm-hmm. Euh, ndax euh, bool yi. Mm-hmm. ak leket yi moom la ñuy wax kalabas. moom lañ daan dëpp di ngoyaan. waaw man nag yàlla dogal ma judd ci loolu. fekk fa loolu. aw ci tànk yooyu. d'accord si sunu borom ci liñ ma tàggat sunu suñu borom it jàppale ma ci. li may def nag neex neex leen neex senegal gi yëpp. ñu ma lii daal na jëm kanam. waaw bu ko bàyyi même sax suma rako pap boobu ma lay wax daf ma daan xëcc sax naan ma woyal fii defel nii waaw ngir ëllëg musique bi d'accord waaw euh, ma na ko Cheikh mu ne ah, ma ne ko lépp nañ koo boole rek parce que man euh, foo ma woo rek incha allah loo bëgg daa la ko tegal mu testé ma ci côté yu bari nag fu mu ma xool mu mu rafet rek mu ne ma c'est loolu moom moo indi polyvalence. moo indi polyvalence ci biir. parce que euh, tey jii bi nga yemoo rek si bongo bi. yemoo si si bool yi. Mhm. yemoo si lekkat gi ñuy wala paan yi ñuy dëpp. Mhm. da nga ni dinaa teg orchestre. Mhm. lan moo la motiver nga teg nag ay instrumentiste boole ak li nga li doon def lu la motiver. waaw dafa am benn bés. ma nekk ñu nekk Kaolack fu ñuy wax Toro Express. Toro bu Abda Aj. Euh, boobu orchestre régional bu Kaolack ñoo fa daan ne. bi ñu ñëwee benn bés ñu am soirée sénégalaise ma ñëw ànd benn grand bu ñuy wax Boy Pen ak Assec nijaayu Papa jaay Coppet. ndeysaan waaw bi As nañ mhm. borom aawo mu ngoog mhm. <laughs> ci biir jataay bi ñu toog. Mhm. Euh, rythme bi dem bi may jog sax tàgguwuma leen ci biir musique bi dama ñëw rek siif tegu ci kaw temps bi. deret moo ci kaw temps bi. ndeysaan apprécier. ba nëgë nii. nag. Ah, kon eh, mhm. mooy polyvalence li la sa sa sa sa sa magu kii bi. sama rakk papa bi sa rakk papa bi bëggaloon tamit dafa feeñ na foofu. waaw feeñ na foofu. feeñ na foofu. mu gën ma yokk fit ndax ndax fa la ko fekk. Mm. dama nag lii laa la doon wax ma a ko waaw mu ngoog man ma it waxoon naa la heure bu ma jógee du jafe. Mm. nii. pourquoi mm. Africa rythmique parce que eh, mënoon nga jël leneen lu gën a kii mais lan la da am yaakaar ni wala da nga da nga jàpp ni. Mhm. war nga mën a sax dem su le plan africain là pourquoi euh, nga choisir Africa Rhythmique. waaw Africa Rhythmique li tax ma choisir ko. Mhm. dama bëgg sama réew. macha allah Afrique. Mhm. waaw man dama bëgg sama réew trop trop trop. que lu ma sentir rek. Euh, fi laa ko amee ci ñoom. macha allah yëg-yëg bu ma am. dama am yëg-yëg daal. ci ñoom moo waral ma jël sama groupe tudde ko Africa Rhythmique. waaw rythmique nag boo ko déggee. mooy rythme bi. rythme bi rythme bi ñuy def. man ñu ñëw si rythme bi. Mhm. orchestre bi mi ngi ci tegu na. Mhm. rythme bi lan lan la lan lañ si mën a fekk. parce que bu ñu nee siit ni Saalum ni Séeréer. Euh, tey bare na ay ñi Ngoyaan. tey tey tey bu ñu nee Sénégal. Mhm. ñu wax Baara Mbay. dinañu tudd yeneen yeneen bàkk. Mhm. tey gis nañu Haalpulaar yi tey si Yela si si Wango. Mhm. Euh, tey boo demee si Casamance nga si Bugarabu bi ak yeneen ak yeneen yi nga xam tey ji am nañ ko. Euh, côté yow traditionnel wala tradi moderne bi ngay def mën nga ñu wax rythme bi nga xam moom la ñuy gën a. gis wala gën a sentir si li ngay def. waaw rythme bi gën a sentir ci li may def. Mhm. wax nga ko sànq. Mhm. mooy bool bool yi ak cung bi. ak waaw. Mhm. ak percussionniste yi na ci biir. waaw man ci xalam sax. ci la démarré ci. la démarré waaw xalam. muy mu xalam muy traditionnel. moo waral nag rythme boobu ci la ci laa gën musique bi sax dafa bett ñu bari. Hmm, dafa bett ñu bari xaaruñu ko woon xaaruñu ko woon xaaruñu ko dafa bett ñu bari. macha allah waaw dafa bett ñu bari ma voilà léegi Africa Rythmique hmm. Makhtar fay hmm. ak ñi nga xam ñoo nekk si gannaawam instrumentiste yi euh, euh, tey est-ce que am ngeen projet album wala single fan ngeen toll si loolu. waaw ñun nag ñu ngi pare album. ñu ngi ci incha allah ñu ngi liggéey. guddi bëccëg. suba ngoon. suba ngoon waaw lépp rek. pour fas yéene bégal Sénégal ni ma la ko waxee rek. macha allah te fu ne xaj na ci nag bu ñaanu yàlla mu yem Sénégal rek. ok mhm. kon xalaat ngeen tamit mu jaay musique africaine. Uh-huh. Euh, sur le plan international. voilà voilà loolu moom ñoo ngi ci am nañ ci idée bu rafet te am nañ ci njort la rafet. am nañ ci njort mais single bi ndax wala boog. Euh, mm. est-ce que lan moo des lan moo des. waaw manque euh, manque de moyen rek comme ni ma la ko waxee. bëggoon naa single bi sax maa ngi ko doon waaj. Mhm. avant korité mhm. ndax loolu laa doon waaj ne dama ko waroon def spécial ndewenal. d'accord waaye comme suma manager. Mhm. moom moo ne ma moo xool ne ma nañu def album comme mi ngi fi. waaw bagage yaa ngi ñu jeexuñu. waaw nañu liggéey album. moom moo ko gënal. single wa moo ko gënal single bi. waaw nga def sa premier événement euh, le 7 juillet bi passé mhm. euh, foofu si euh, place publique bu nga xam mooy Grand Médine mhm. di sa fief mhm. fi nga xam ni fa lañ la xamee ñoom ngay ndamoo tey laaj bu ma lay laaj mooy événement mënoon nga ko def si boîte waaw mënoon nga ko yóbbu Saalum mënoon nga ko yóbbu feneen fu la neex lu tax nga jël choix wu option wu def ko foofu si Grand Médine waaw Marou Grand Médine nag da yàlla dafa dogal mënu ma leen fay. Mhm. liñ naan ku ñu euh, ku ñu tudd fa nga dëkk nga gestu. loolu moom moo ci ne. Mhm. parce que lu ñu am ci man rek. Mhm. defe naa ne ci ñoom la. ndax ñoom ma tegul fu ñu tegul benn artist dëgg neexul. dëgg waaw ñoom dañoo am yëg-yëg ci man. am lu ñuy yëg ci man parce evenement boobu bi koy waaj xalaatuma ci fenn fudul Grand Médine. mais laataa man sama xalaat lu jiitu sama xalaat ñoom xalaat ñoom ñoom ñëw nañ proposé ma lool. Mhm. ne ma doo ko yóbbu fenn fu dul fii. Mhm. ndax ñun amuñu lu dul yow te yow la ñuy tiitaroo. Mhm. loolu moo waral ma choisir Grand Médine def ko foofu. am fa kilifa yoo xam ne it am nañu yëg-yëg ci man ndax nee nañ ma li ngay def. xale man na koo déglu mag man na koo déglu. xale ak mag yëpp ci la ñu bokk. ci la ñu bokk. waaw. waaw looloo looloo euh, tey bu fekkee ni yaa ngi nañu seetaan am na morso bi nga xam ni ci événement bi. Mhm. moom nga ubbee. Euh, mhm. vraiment muy morceau euh, cosaan. di diyaata. Mhm. muy morceau bu am solo nañ ko setaan dellu soir sur le plateau. Thank you. voilà gis ngeen li nga xam ne moom mooy nag morso boobu di Diatta waaye gis également li nga xam mooy événement bi euh, ñëpp wuy si foofu si Grand Médine mu doon le 7 juillet bi passé euh, Makhtar Faye ak groupe euh, gis nañu ni nga ñëwee si ni nga solo macha allah donc événement bi toll noonu. événement bi parce que gis nañu ni négligé woo dara waaw loolu moom feeñ na si li nga xam ni euh, même bi ngay woy ku la dégg xam ni yéene nga woyee xool nga woyee euh, et que euh, deret moo la woyloo tey bi nga ñëwee gis place publique bi fees dell ñëpp di la xaar mu guddi ñëpp toog lu mu def si yow en tant qu'artiste waaw mënatumaa téye sama bopp. ndeysaan ndeysaan waaw def mhm, mhm. ndax bu dul dara sax waxuma la mhm. waaye kilifa ya fa newoon ku mel ne Baara Samb nga xam ne kilifa la. dëgg di responsable bu mag. ci réew mi. ñëw assister ànd ak délégation. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. pour bu ma limee sax damay jum. ndeysaan ñu mel na ñoom Tidiane Diallo. Mhm. ñu baax ñoom nga xam ne ay baaxkat lañ suñu borom a leen a baaxloo. Mhm. yëkkati leen sax yombul. dëgg parce que euh, yu ñoom ñu euh, heure yooyu. yu mel noonu. ñu ci jóg. di ci dem. man maa leen jaral ñu déplacé. bàyyi lépp lu ñu def. Ah, gis ngeen euh, euh, photo yooyu di défilé wu gis nga public bi ni ñu ñëwee gis nga parrain yeeg yooyu gis nga vraiment macha allah euh, donc mu doon tamit li nga xam ni xëy na moom nga doon xaar aussi si bés bi dafa mel na rek delloo nga leen njukkal waaye ñoom tamit wax dëgg yàlla delloo na leen njukkal. loolu am mhm. mhm. nit bés. Mhm. mu jóg ànd ak délégation loolu dafa rëy. Mhm. am lu muy def. absolument ci doomu aadama. Mhm. di ko def nag ci ndaanaan li taxaw. Mhm. di wax ak yow ba ma gëstoo nag gis waa Grand Médine. gis parcelle. gis waa Cité Kër Xaadim. ndeysaan feneen ak feneen bu yeboo ma ne ma gis Sénégal gépp. ndeysaan keroog ma xaw mënatuma sama bopp wax dëgg yàlla moo tax maa ngi expliqué naan leen ah man de mënu maa wax. ndeysaan mën naa woy waaye mënu maa wax sama xol na. ndeysaan waaye tey lu ma mën dinaa dinaa dinaa leen ko defal parce que lii bu ma ko defee yàlla ak a tey bu bu doon tey nga defaat ko. bu démb tey ma defaat loolu. <laughs> ndeysaan euh, tey Africa Rythmique euh, Makhtar Faye euh, est-ce que orchestre bi mu taxee ba léegi programme yi naka la demee yaa ngi yéen a ngi joué est-ce que yéen a ngi faral di joué. waaw allah. Mhm. sax tey dañu bàyyi programme. macha allah waaw. le sept aussi ñoo ngi faaye Grand Médine. Mhm. le onze ñu ngi Thiaroye. Mhm. Euh, le 5 ngi euh, Liberté 2. Liberté 2 kon su ma la déggee daanaka weekend bu nekk sax ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen joué. macha allah semaine bu semaine bu ne. macha allah yàlla yàlla yokk yàlla euh, def lépp li nga xam moom mooy ndam si li ngay def tey projet yi lan la fan nga bëgg yóbbu li ngay def mooy musique traditionnelle wala tradi moderne wala musique africaine bi ngay def foo ko bëgg yóbbu. maxu mhm. fii man damaa ñaan yàlla mhm. fii sundur tool ma tool yàlla mën na loolu yàlla na ko yàlla yóbbu musique ba àddina xam ne yóbbu naa ko yàlla mën na loolu waaw mhm. maag sama groupe ndax euh, ku ñeme dañ la dey boo dee bu ma dee xool ba ci biir damay gërëmaat sama waa groupe ndax bu ma amee doole yàlla ak ñoom la ñoo ma dooleel ñoo ma jàppale te amuñu ci benn xolu ki ñaan dëgg te dañu wax ne li yàlla def loo ko loo ko loo ko loo ko bañ-bañ mhm. nangu ndax mbiru suñu borom la mhm. ñi may àndal am nañu ngor toppewuñ ma alal yombal nañ ma mbir mi moo ma yokk fit ba ma xalaat ne mën naa fee dem mën naa cee dem fu ne te nag ci lañu taxaw amuñu reculer suñu kanam rek lañu xool pour mhm. avancer pour bëgg yàgg yegg fi ñu yegg pour yóbbu musique Sénégal fi ko ñëpp yóbbu ñu ngi ciy ñu ngi ciy tudd. Mhm. ci la ñu ñu ngi liggéey guddi ñu ngi liggéey bëccëg. boo dee xool maag sama staff kenn nelawul. kenn nelawul kenn nelawul ñoo ngi ci mhm. guddi ñoo ngi ci bëccëg fu ma ne leen karal ñu jóg lu ñu jàppoon ñu bàyyi. ñëw dañu gëm gëm li ngay def dañu gëm li may def mhm. bëgg li may def gën ma ko bëgg man ma koy def macha allah waaw parce mbooloo bu ñu booloo di def benn affaire buñ ko gënee bëgg ka koy wax wala mu koy def rek am yëg-yëg parce nit ki looy def rek daf lay neex doo ko neex ñi lay kon daf leen a dañ dañ koo dañ ma koo gën a bëgg moo tax ma am am ci am naa ci am naa ci xel mu rafet daal dafa am morceau bi nga xam moom nga ubbee moom sànq muy diyaata mhm. euh, muy li xam ni wayu cosaan la wayu cosaan la euh, lu mu lay def boo koy way ah. wala lu tax lu tax nga ngay ngay tibb si cosaan lan nga bëgg woon xale yi mhm. waa li ma leen bëgg a wan moo di ah, musique aar du tricher te woy dafa da woy dëgg la mhm. ndax woy du caaxaan mhm. du lu ñuy faye du du du tricher waaye daal du tricher. du tricher ma la ko mën a waxee. Mhm. waa parce que maa ngi lay wax naan la ki la dàqa woy. ki jaar ci buumu xalam ki woy ci xalam moo la dàqa ñu ngi fàttaliku. jëm si yàlla Ndiaga Mbaye jëm si yàlla Ndiaga mm-hmm. waaw kooku daf daan wax naan na xale yi ñu ubbil leen saali ñu ñu tàggat leen ci buumu xale bi. ci buumu xale bi waaw ndax ñu man a way way du dangay ñëw rek yu waxu way sànni nit ki dee déedéet yow li ngay def yow lay njëkk a neex doog a neex ki lay déglu. <laughs> parce que man morceau boobu moo koy way dafa am lu may yëg. daf lay daaneel rek daf may daaneel. Mm-hmm. mu leer ma ne man lii may daaneel kon ñii ma janool di leen leen wax lii may wax. dëgg wax dëgg yàlla am nañ ci luñ ciy yëg. yaa laal xale yi laal musique bi eh, naka ngay say xale yi xam ñu ngi jóg. ñu ngi jóg waa xale yi. waaw man de bu doon ah, dama leen bu leen bu leen waaw boo leen doon conseillé. waaw bu ma leen doon conseillé. Mhm. leen ah, dama li ma leen di wax mooy. Mhm. ñu jéem a jàngi xala boo xalamkat yi jéem a way ci buumu xala. si traditionnel waaw ci da leen woo si traditionnel. waaw waaw parce que mhm. Mm-hmm. dëgg la. Mm-hmm. waaw woy dëgg la woy dëgg la waaw woy dafa nekk dëgg <laughs> waaw. pour ñi nga xam ñi ñu ngi ñu doon seetaan nag moom doon sunu sunu invité eh, dëkk nag fi nga xam mooy Grand Médine waaye nag juddoo yaro cosaano fi nga xam moom mooy Kaolack saalum eh, tey jii eh, mu ànd ak ay ay ay groupe am waaye waaye ànd ak ñi nga xam ñoo nekk si gannaawam fàttewu leen lim na leen léegi. wan ni ñoom ñoo si jàpp donc moom rek mënul dara mais dafa am ñu xam ne ñoom la àndal euh, muy Africa Rythmic euh, tey euh, bala ngay tàggoo bëgg naa nga am loo ñu yëkkatiwaat si sa baat moo xam waaye cosaan la moo xam lan nga ñu mën a may fariyo ñaalo gay naa ko daan jël mbër du lalu day màgg doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg dees na la ñam liñ toppe doomi garmi yaa ngi ci yow muñ lu metti gore bañ weg laa kenn demul bala réewum Sénégal déglu leen ma man maa bëgg a waxtaan ak yéen wayle leen ma jaratu sooda ndong sama jigéen bi lay way man kookooy séeri Momadou Seen sooda yaayu maam jaara ah ajaratu soodaay yaayu faatu bintu rasul lay bëgga way sooda sama jigéen bi kor Momadou Seen ni nga mel ren noon nga meloon daaw ajaratu sooda du soppeeku ami balla taal mooy yaayam ajaratu soodo ndong musa ndongay baayam ah sama jigéen bi way ko duma wàññi dara kor moma duwoy way la duma wàññi dara sooda waaye maxu foofu fi nga fi nga fi nga yëkkati foofu laa lay loolu ngay yëkkati di ko way nit lan lay def si nit waaw li muy def ci nit mooy mooy li may yëg waaw mooy li may di gat nit mhm. nii mi ngi topp waykat yi di maye maye xaalisam nii mhm. mais est-ce que mi ngi xam kooku lan la yëg bi ko woyee looloo am yëg bi tey parce que mhm. euh, loolu loolu est-ce que mën nga ko mën mën mën nga ma si leeral mën nga ma si euh, maxu kooku li ma ciy leeral man li may yëg yaakaar naa ne ki may waxal lu ko raw la yëg ndax euh, la ma lay wax dàqul lag may jox ba tax na man la may yëg ko sentir defe naa ne lu raw loolu moom ngay yëg parce que nit ki bu ne boo ko jamee rek laal nga ko laal nga ko waaw boo ko jamee rek laal nga ko du ko tey waaw sama maam daan na wax naan <coughs> euh, ku euh, ku amut géer ku am géer ku amut géwél mm. judduwaat war na la. ah waaw. géer gu amul géwél rek judduwaat war na la. baat boobu ci sama maam laa ko. nga ko doon jël waaw ci sama maam su ma la déggee way si xol lay nga koy jëlee bu ko defee mën a dugg si xol. mu mën a dugg ci xol. ndax yow may jëlee wooy wooy wa ngay wooy foog nga sentir ko ci sa xol doo mu doo ko neex. ka koy déglu koy déglu. ndey woy woy daal man dama dama dama naan woy dafa war a am dafa am ndeysaan. waaw dafa war a am ndeysaan woy wu amul ndeysaan baaxul. mooy ba ñuy baaral rek. waaw kenn boo ko baaralul du neex. déedéet woy wu amul ndeysaan baaxul. woy moom ndeysaan Maxtaar wax dëgg yàlla euh, doyul ñu si donc euh, xam naa ne incha allah yoon yamul si benn la ñuy wax. Euh, tey lan ngay tàggoo say soppe ak ñi nga xam ñu ngi la doon seetaan. waaw maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp. di leen wax ne nag nañ ma xaar yàggatul. Mm-hmm. maa ngi ci yoon di ñëw. ndeysaan. te aw aw ci xàjj nag ak seen. Mm-hmm. parce que dama ne nit nit moom bu baaxee nitu ñëpp la. Mm-hmm. te man yaakaar naa ne man nitu ñëpp la ndeysaan loolu man nitu ñëpp laa. di la gërëm nag yow moomu di jemaxu sa ñàkk kiñaan ñaan. ñoo ak sa mbaax ak sa yéene ak fi nga bëgg ma yegg xam naa ko. ñoo ko bokk réew mi it xam nañ ko. da nga am talent wane nga ko ba mu ba ñu. da si bokk ndeysaan <laughs> rek a wóor. damay wax artistes yi jàppale ma jàppale ma wóoru. dëgg la soo defee lu neex. Mm-hmm. Eh, teg ko si yoon comme ni nga wax noonu dem jàngi ko cest à am talent mu nekk si yow. dëgg la eh, daanaka da ngay neex a jàppale. wallaay dëgg la mooy li naan nag eh, vraiment ku nekk si yoon moom. Mm-hmm. defe naa ni kenn mënu si dara. dëgg la voilà siy teg sa loxo rek. Mm-hmm. parce que boo ko tegul tam dina dem. teg ko si rek. bu ko defee mu rafet. dëgg la macha allah te yaa ngi si yoon yàlla yàlla lafal la cat amiin amiin également tamit yàlla bàyyi la ñi nga àndal say ñaari soxna également yi nga xam ni mhm. eh, euh, tàmm nañ leen gis si programme yi ah, ba orchestre bi taxaw mhm. donc ba orchestre bi taxaw également tamit macha allah ngeen nekk ci donc loolu sant yàlla la wallaay dëgg la sant yàlla la waaw waaw ndax ñoom maa maa ngi ñoom a débuté ndoo mhm. ñu jàpp rek nag taa bàyyi ndeysaan waaw waaw ndax euh, yaakaar naa li na ci ñoom sax maa ko def ci ñoom ndeysaan waaw ak euh, sama goro bi toog ndeysaan di sama rakku jabar ak sama xarit bële di Samb nga xam ne presque maak moom. benn lañu waaw ku gis Samb gis la. Samb gis la fu ñu gisee Samb gis la yéene ma li muy def ah, lool. ndeysaan man daal mu ma limee damay jiw. ma maa ngi gërëm ñëpp di gërëm gërëm sama groupe. jàpp nañu taa bàyyi. yàlla nañu yàlla jàppale ñun ñëpp. amiin yaa ngi gërëm ñëpp. sant ñëpp jërëjëf. Mokhtar ñu ngi lay béggee bu baax a baax di sama Thomas eh, mu doon tey sunu gan si fi nga xam mooy Dakar info point net. Eh, seen émission ganu kër gi di leen béggee saa eh, beneen yoon rek incha allah si beneen numéro ganu kër gi ak beneen daanaan bu soobee yàlla.